di ci émission boobu nga xamante ni mooy réponse ñu ci ànd ak ki nga xamante ni mooy kom Khelcom Saliou Khelcom euh, ginnaaw bi ñu la nuyoo ba pare tey nag actualité bi ñu bari xam nañ ko muy manifester bi nga xamante ni waroon naa am te préfet arrêté ko ginnaaw bi ñu la nuyoo euh, nga dikk wax ñu sa xalaat ak sa gis-gis ndax euh, tere gi ñu ko tere yoon la wala du yoon. waaw sëñ Mahmoudane maa ngi lay fay maa ngi nuyu mboolem ñi ñuy seetaan ci ci seen bi ci seen Buzz fii di leen ziar lu bëree bëri di leen wax ñu topp ñu fii nii rek. Euh, ak kii ñi amal fii sa quatre jours incha allah ci farañ fàccee xew-xew yi am ci réew mi. noo gisee euh, manifester bi nga xamante ni préfet da ko tere euh, ni ah manifester bi kat terre bi fi bi fi jaar moo tax ak 4 afril bi nga xamante ni parce que des na 4 mois wala trois mois mu ni loolu moo tax ndax loolu yaay na la. noon loolu mësuñoo yey ñun xamoon nañ ni que loolu dañ koy interdit ndaka jekk xamoon na Ousmane Sonko mhm. ñoom. dafa mel ni dañ ko def ennemi boo xamante ne si amatul benn droit dafa bokkatul ci réew mi quoi. moom ak ay kiyam mm-hmm. ak ay partisan parce que boo xoolee nit ñi nit ñuy jàppee ay ñooñam ak di leen tëj daanaka dem sax di leen ñaan autorisation pour mu manifester moom daanaka yàq sa yàq sa wax la rek boo xool Macky Sall boo depuis mars 2021 bi ñu jëlee Ousmane Sonko ju may ko liberté xam nga ñun ñoo ko jox liberté bi moom du Macky Sall. Mm-hmm. parce que ba léegi mi ngi ak donc loolu noonu dafa tax dañu si ama dañu dañu amanteeg moom en boo xam ni chaque manifestation wala yàkkamti nañ ñun ñu génn tamit instant bi jàkkaarloo ak ñoom. Mhm. ba ñu rey ñenn ci ñun jàpp ñenn comme ni ñu ko bëgg a defee balaa 2024. Mhm. daanaka ñu xaw a wàññi suñu doolee defe naa loolu mooy seen objectif dafa mel ni parce que mhm. maa ngi gis nii rek ñu ngi jàppu keroog euh, Ousmane saar ak euh, Bayna Gueye. ci dem bi ñu dee taxaw ndi yuuxu nañ libéré Pape Alé Niang donc ñoom. Mhm. képp ku ànd ak Ousmane Sonko instant bii nii li ñu bëgg mooy jàpp képp ku ànd kuy défendre Ousmane Sonko wala ngay défendre leneen lu dul li bokk lu wuteeg li Macky Sall di wax. Mhm. moom na nga xam ne sa sa kaso moom leer na ba pare. sa kaso leer na ba pare loolu moom moo am ci réew bi mooy. Mhm. mais nag li ñuy wax mooy kii bee jotagul rek maanaam lii nii instant. <coughs> autorité comme nee nañ lee lay bee ñu teg ne li ñuy def mooy defe naa dañuy jàppaat feneen. Mm-hmm. pour pare def ma kii bi mais incha allah. Mm-hmm. manifestation yi dina am. Mm-hmm. te lii pees la ci ñoom nañ ko xam. bu ñu defaatee buñ même buñ ko euh, <coughs> buñ ko interdire. ak buñ ko valider moo si am dinañ ko def. par la force. ak lu si ti am. tey ñu gis sa leader Ousmane Sonko waa RFI ak waa France 24 doon ko dalal. Euh, mu indi fa tamit ay leeral yu am solo euh, ba di wax ni moom bañul bañul France mais euh, concept bi nga xamante ne teg nañ ko Afrique surtout Sénégal moom loolu moom moo ko neexul nee na moom gañaa gagnant la bëgg maanaam dafa bëgg daal exemple ci wolof booy jariñu man tamit may jariñu ban commentaire ngay def ak li nga dégg yëpp tey ci Ousmane Sonko li mu wax ak waa France 24. waaw tey seetaan naa loo interview bi mm-hmm. muy nekk lu am solo mu wax si lu wax yu am solo nag mm-hmm. parce que booy xoolee maa ngi gis ni interview bi mi ngi commencé ñoom ñu ngi ko commencé ci complot bi kii bi ñu ko teg. Ah, test ADN defe naa ci test ADN la ñu njëkkee ak moom. Mm-hmm. te yaakaar naa ba eh, dafa mel ni wuute ak ñi nekk fii li ñuy wax. dinañ ñëw ci test ADN bi mais dañoo bëgg maanaam. comme lim lim tontu bi mu ko waxee loolu ci ci ci ci ci diggante euh, France ak Sénégal ci noot gi ñu noot foofu laa bëgg nga njëkk faa duggee. waaw loolu moom Ousmane Sonko ndaka jekk mosul mosul wax ni. Mhm. day quitté ak tubaab bi. Mhm. dafa bëgg a négocier contrat yi la wax. Mhm. maanaam ñu def gagnant gagnant ñoom ñu ci jariñu ñun ñuy jariñu. amul problème ak tubaab yi noonu la leen ko waxee te loolu mooy li am. mais am saar ni ñu tubaab yi di noggatoo bu yàggul comme ni ñu def fële ca saar ya dem. taal fa jële fi taal ay kër. pour jë jële leen te teguñu leen yóbbu te wutaluñu leen fenn fu ñu nekk. taal leen parce que foofu dafa am or. yooyu ñuy def te or boobu di dugg Sénégal di génn Sénégal tout le temps. sénégalais gisuñu ci dara. loolu la Ousmane Sonko ni wax ni dana fi jóge mm. te loolu intérêt defe naa. képp ku képp bépp président nag wax dëgg yàlla. li nga li nga sa kii li mu war a doon mooy sa intérêt réew. Mm-hmm. avant tout bala nga naan. naam ne fa la wax. kon yaakaar naa balaa ngay balaa dara di génn ci réew mi fii lu mu mënti doon comme ñun mënuñu ko génne nag. Mm-hmm. mënuñu ñàkk am ñu ñu kiyal lool mais nag bu boobaa li muy doon mooy. Mm-hmm. gagnant gagnant fifty fifty. loolu defe naa même président Macky mi fi nekk. dama yaa dafa dafa dafa dafa dafa nekkul patriote rek dafa bëggul réew mi rek waaye loolu noonu bokk na si li nga xam ne li mu waxande woon ak sénégalais yi mm-hmm. bañ koy jox réew mi mm-hmm. biñ ko bi mu faloo nag comme jëm na ni tubaab yee ko fal mm-hmm. te jàpp na ni bu deful li ñu bëgg dinañ ko fi jëlee jàpp na ni doolee doolee tubaab bi tamit moo ko fi mën a saxal moo tax mu ànd ak ñoom ci li leen neex lan ngay wax tim ci test ADN bi sax ndax tubaab bi moom la ko njëkk a laaj euh, journaliste France 24 bi euh, laaj na ko test ADN lu tax ñu wax ko ko te moom defu ko Euh, bëgg nañ nga jox ñu sa commentaire li ko Ousmane Sonko. waaw loolu yëpp bokk dafa mooy la ma la wax mooy dafa mel ni tubaab yi ñoom ñooy dicté ñi nekk fii nii rek parce que. Mm. tas sa ADN wax ci dossier bii nii. Mm. waxoo certificat médical waxoo yeneen ak yeneen lu dul di wax ay tas sa ADN. Mm-hmm. tas mënul am parce que ëmb amul foofu. Mm-hmm. kon donc tubaab yi ñoom ñu ngi ci ñu ngi ci li li ñi nekk fii li ñu nekk rek. june mm-hmm. justice bi ci li muy dox te gëm naa ni ñoom. ñoom ñoo leen di doole ñoom ñoo nekk seen ginnaaw pour ne faagaagal Ousmane Sonko ba du bokk élection yi mm-hmm. loolu rek mooy seen objectif mm-hmm. mais ñoo dossier mais ñoo gën a xam ne lii nii mënul am tas si ad yoon tant que ëmb amu si mm-hmm. te tamit certificat médical ñëw ni lii rapport amul foofu mënoo wax tas si ad defe naa tu bu fekkoon ni tubaab bi dañuy wax rek wala bokk li ñeen informé ah, wala dañoo yëgul lee xew kon bokk li ñu waroon wax mooy lan moo tax certificat médical am ba noppi bi di toppaat leneen loolu moo nekkoon question mhm. dañuy ñëwaat tuuti ci ci ci ci actualité boo xamante ni am na muy euh, euh, audio Adji Sarr yi nga xamante ni yu baree bari fi mu toll mi ngi génn euh, tey nag daf cee tudd ki nga xamante ni mooy Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi ba Fatoumata njaay bi gars yi jokkoog moom nee na dina porte plainte Adji Sarr ndax tudd gim ko tudd sa commentaire ci porte plainte boobu nga xamante ni ñoom ñaar ñoo daan ànd daan xeex tey nag ñu féewaloo ban commentaire nga ci am. Fatoumata Ndiaye day day wax nii dafa ñëw rek pour seetal boppam mais li aj Sarr wax noonu man laa gën a gëm gëm naa ne bu fekkoon euh, jëlul xaalis euh, Adji Sarr du tudd hmm. mais comme wax naa ak moom ñoom ñaar ñoo yem seen ay wax li ñuy wax même boo leen tegee seen enregistrement même boo leen fee tegale vidéo ñuy wax nii sax dañ naan waxuñu ko. Hmm. waaw ñoom noonu lañ mel. Hmm. daa ñëw pour gëlëmal sénégalais mais li aj saar wax moo am mais turam génn na moom foog mu ñëw ni certifié wu wax ay waxam dem. mais li Sonko wax li kii ma wax moom li Fatouma li Adji saar wax. Hmm. parce que avant ko Adji Sarr wax fa kii moo ko wax ba pare ba mbay si moo ne ko ay Fatouma da fuuta tàmpeeg yooyu ñuy jox noonu. Hmm. kenn ñu la mu ne voilà. soo ko dëggal lool kon dèjà am na. bu amuloon ba mbay du du du defe naa balaa enregistrement yooyu ba mbay da defe naa dadul benn yoon la boo boo leen digloo day mel ne du benn yoon boobu lañ ci wax. Hmm. dañoo ñëw pour confirmer waat rek ci ojo boobu noonu génn. Euh, euh, ñu ñëwaat ci beneen actualité boo xamante ni tamit amoon na muy ki nga xamante ni Bougane même senre audio bi rek génn woon na fan yi ba tontu daan ni moom kat mës a xam Adji Sarr boobu léegi ñu ngi lay doo gis ñu doon la laaj sa gis-gis ci Bougane nee kat xamul Adji saar te gars yi tudd nañ ko ci audio yi waaye nee moom mës a gis aji saar waaw Bougane moom euh, yëf mbokk moom moom la turam njëkk a génn. Mm-hmm. te loolu ba tey weddiwu Mhm. maanaam xaw ma Adji Sarr beeg doyul de dañu ni Bougane dafa joxoon kër Adji Sarr. Mhm. loolu ba muy génn defe naa ba ko Mollah Mor nga gën di wax. Mhm. booba ñu baree bari cité guñ leen woon ci affaire te loolu raisonnable na xam nga du kër Sénégal nag yow ñu cité la Sénégal li fi nekk ci ay nit ñu yori kii yow ñu cité la si ni yow yaa def nangam. ba léegi France François Hélène ñëw na fi cité waat turam. Adji Sarr génn na cité turam. defe naa ñooñu ñëpp nag ñi ko ñuy wax ñëpp nag nekkuñ Bougane daf daa am lenn lu mu compté ci Sénégal wala Bougane lan la def loo xam ne war ñoo jeg-jeg di surtout moo laa Morgan xamuloon Bougane seexut ak moom dara. Mm-hmm, mm-hmm. France waaye leen defe naa moom Bougane ñoo war a bokk kii. Uh-huh. kee Adji Sarr noonu. Mm-hmm. li tax li tax ñu sudee ko si parce que daf ci nekk Bougane ci boppam moo nekkul nit moo moo nekkul nit quoi parce que. daf bi loolu xewee dafa ñëw ànd ak Ousmane Sonko ci xeex boobu noonu. Mhm. ak lu munti am waruñu woon déggaat turam ci mbir ci affaire ci mbir moom ci kaw di mi ngi def yeneen. noonu la mel. Mhm. tout le temps li muy wax. Mhm. te euh, li muy wax ak li des fois yi muy génn di wax lépp. ci ay victimisé wu yooyu noonu da ngay boo demee ba si biir lu ci ëpp yooyu noonu da da da ngay gis ni. li muy wax nii amul. am na am na relation bu mu am ak état bi moom. tout le temps mm-hmm. loolu day feeñ. Mm-hmm. parce que nag dëgg-dëgg rek mais Bougane bu nekkoo bu nekkoon opposant bu. Euh, radical radical. Mm-hmm. teleem bii du du fonctionner. loolu même bu fekkee ay kiyam génnul sax ñun xam nañ ni bu fekkoon opposant bu radical la ni muy waxee nii teleem du fonctionner. macha allah nañ loolu bu baax. ñu uh, wax ci benn actualité boo xamante ne am na fi tamit muy étudiants yi nga xamante ne xeex na ay def casserole lu ne def nañ ko waaye tey dañoo nemmeeku waat étudiants yi yeneen yu génn yoo xamante ne nee nañ ñoom ci lan bokk waaye weddi nañ étudiants yee maanaam ñaawlu seen eh, concert bi ñu doon def ba ni sax ñoom dañ ciy business Doudou Ka moo nekk seen ginnaaw tey eh, ci ci ci ay côté ngoon yooyu la étudiants yooyu génn Euh, sit yu baree bare dugal nañ leen sax ban commentaire ngay waxaat ci étudiants yooyu ak étudiants yële. waaw a jekk loolu ñun xamoon nañ ni politique la. Mhm. man waxoon naa ko bu yàgg. nit ñi génn di taal nii. lii lii am nii moom moo ko waral. maanaam lii li kar sorol bi amoon noonu gis nga bañ xëyee la ñuy def conseil ko sorol ñoom tamit. beneen bi mooy gis nga beneen yeneen étudiants yi génn ñëw gis nga leeral yi ñu ci def nee nañu étudiants yooyu noonu ñoom. dafa am ay financement yu ñuy jot beneen bi mooy ñoom dafa am ci ñoo xam ñoom ñoo seen kii yooyu ñu def ñoo xam ne ñoo dirigé immeuble boobu noonu ñoom ñooy ñoom ñooy liggéey ci kaw yenn étudiants yi daanaka keroog boo xool ñoom ñoo ñoo leen jël gurgur leen comme ay xar di business ci seen kaw mm-hmm. ci gone yi te ñu ci bari xamuñ nag lan moo xew dëgg-dëgg mm-hmm. mais ñoom ñooy dem ci du dem duuduka encaissé li ñu encaissé ñëw jël kii pour defal leen salle bu parce que mm-hmm. dañu ni élection yee yee ñu paase ne Doudou Ka la ñu dem mu jox leen xaalis ni leen léegi nag <clears throat> bu ma leen di jox xaalis nag joxuma ay mooma xaalis da ngeen lan ngeen ma mënal quoi lu ngeen ma mën a fayee. Mm-hmm. léegi nag <clears throat> looloo tax bi élection yee jub si élection législative ñoom ñu génnoon doon def ay manifestation pour yàqal Ousmane Sonko. Mm-hmm. c'est que ñi leen jiite ca boppam ñoom ñooy politikal Doudou Ka. Mm-hmm. looloo tax Ousmane Sonko sax ni leen immeuble boobu parce que. man doon doon laa doon xalaat naka jekk ni bailleur bi moom boo moytul Doudou Ka lay doon moo tax Ousmane Sonko ci boppam bëgg a sensé boobu noonu parce que bu fekkee affaire de politique la rek récupération politique la la moom Sonko moo leen moo leen dàq politique daal gëm na euh, xam naa ne mm-hmm. voilà. Mm-hmm. macha allah euh, fi ñu jeexale tey mooy euh, Euh, li nga xamante ni mooy nemmeeku tour ñu war koo lancé waat la huit bii euh, jàpp na ni sax euh, bu foomul mën naa mu démarré ci muy nemmeeku tour bi ba am na yenn cagnotte yoo xamante ni gars doon nañ ko ci def ban gis-gis nga am ci nemmeeku tour bi bu ñëwaatee est-ce que jàppoo ni Macky Sall dina ko jéem a comme faagaagal comme yii nga xamante ni jàlloon na ñu jàpp ay Fadilou Keita yu bari daal am ba nemmeeku tour bi léeg-léeg mu tàmbali ba mu tàmbali ba mu neex ko mu reprendre mu mu mu mu yàqu mu reprendre ban gis-gis nga ci am. waa nemmeeku tuur bi ndax day day continuer ak lu mënti am. donte nag léegi nga wax ni dina sa am dinañ continuer. Mhm. di ñu saboote parce que déggoon nañ fay nit yoo xam ne nee nañ bu Ousmane Sonko moom. Mhm. di def nemmeeku tuur. Mhm. mu nekk dinañ ko fa fekk. waaw nit ñi Sénégal moom ñi ànd ak Macky Sall am nañ liberté Ousmane Sonko xañ ko ba du dox ci réew mi du génn du dem fenn. te dara du leen ci fekk. moo tax tout tout le temps <clears throat> fu ñu mënti dem même ñu ngi ànd ak gendarmerie mais tout le temps ay nit ñu ngi attaqué ñu ngi def lu nekk. mais gendarmerie du réagir mais ak lu mënti am moom nemmeeku tur boobu dañ koy am ñu ngi wax sénégalais yépp ñu pare ñu pare préparé ko ñu fas yéene continuer suñu nemmeeku tur ba 2024 incha allah mais ak lu mënti am moom nemmeeku tur boobu dara dara dara par la force dinañ ko continuer ak lu mënti nekk lu ti am. Sëñ xel Khelcom la woon ci émission boobu di réponse yu bari waxtaane nañ ko fi xam naa ni beneen yoon rek looy tàggoo Sëñ Saliou waaw di leen sant di leen gërëm rek. di ziar ñëpp di leen bége.